Cheikh Béthio togg jox mbooloo mi ñun ñooy togg at gu jot weeru bâche cinquante mën a la ñuy taal yëpp ay tufel moom la ñuy fas yéene séddale ci jouru 17 avril bi daje Cheikh Béthio ak Serigne Sarr ca tase ci li ma xam ci 17 avril mooy ba Serigne Serigne Cheikh Béthio daje ak Serigne Sarr ca tase loolu la loolay suñu mbégte tey ñaanal Cheikh Béthio yàgg fi day gën di yokk at gu jot day gën di yokk at yee dama daan togg 20 mbana añ mais bi paase dama daan togg 10 mais bii 20 mbana laa togg añ lii ci bâche bi lii ci mbokku taalibe ak dëkkandoo yi nekk ci dëkk bi reer yi bâche la jëm ak daara yi kuréelu Cheikh Béthio ñoom la ñuy togg di ko séddale lim biñ ma jox ci nagu añ sept nag la ñaari añ muy neuf nagu reer bi quatorze nag la moom mooy jëm ca bâche jaajëf maa ngi leen di jaajëfal bu baax.